Aliya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 di am mbégte ci jataay bu tedd bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci kër gu tedd gi ci pàkk bu tedd bi di Touba al Mahrousa ci kanam sunu sang bu tedd bi Cheikh Ibrahim al Khalil mu Cheikh Mouhamadun al Fadil di ñaan sunu borom subhanahu wa taala guddalaw fanam wéral ko bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi ngi digis yëpp it nag weesuut rek dongo yi nekk Brésil ak it seen i njaboot ñoo àndandoo ñoom ñëpp am mbégte ngir ñëw waaye ci liñ ci mën a tënk rek mooy mbooloo mi nga xam ne daje nañ daa daaira yi nga xam ne ñu ngi Brésil ak li ko wër euh, bi ñu boole seen addi lépp nga xam ne moom la ñu war a jébbal cheikh bi mi ngi tollu ci 12 millions 355 mille 330 muy li nga xam ni moom la ñu war a jébbal cheikh Mouhamadoul Mountakha addiya jooju nag dañ cee boolewaale addiya ji nga xam ni moo jëm ci soxna Diarra Bousso ndax moom mi nga xam ni mooy xalifatul am moom moo fi toogal soxna Diarra Bousso addiya yi nga xam ni moo jëm ci Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine jëm ci sëñ Cheikh Jëmb Fall moom dañ koo ber moom itam bokk ci ci yeneen jataay yu gën a yaatu incha allahu taala dinañ ci dikk ngir indi ci ay leeral di ñaan it mbooleem rek suñu borom defal ñu ci ndam ak tawfeex ba lépp liñ ci yéen rek suñu borom mottali ñi nga xam ni joxet suñu borom sàmm leen yër leen te barkeel li nga xam moo des ci seen i poos te it aar seenu njaboot bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di jéggalu di leen jéggal bu baax ki doon jokkoo ak yéen mooy Abdou Salam Touba Nawarasa wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala ñi ànd ak sëriñ Khalil Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Khalil jébbal na liggéey bi sëriñ bi sëriñ bi nee na yéen waa Brésil mi ngi leen di sant di leen gërëm di am mbégte lool ci ànd bi ngeen ànd ak moom ci liggéey bi sëriñ Touba bi. waaye xelam gënati naa dal bi ngeen ànd ak sëriñ Khalil Mbacke mii ñëw ci wetam kon mi ngi leen di wéttalikoo nee na mi ngi sant bu baax ci taxawaay ji ak yitte bi waaye mi ngi leen di feddalee ay laxasaayam ngir ànd ko ak yéen ci liggéey bi sëriñ Touba kon mi ngi leen di ñaanal fa ngeen ne ngeen xam ne sëriñ bi rek ngeen fa nekkal mi ngi leen di ñaanal suñu borom kattanal leen te aar leen te sàmm leen te ñu day cee ma sëñ Tuubaa na ñëpp tàllal seen loxo dox amin te lu waaye bëgg na ko fas ñaan gi yéen waa fédération Brésil na ñëpp tàllal seen loxo te wax amin te lu waaye bëgg na ko fas ñaan gi Amin. jërë ngeen assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu Juli di, eh, dimas dimanche 18 novembre ñu ngi fi ci Touba nekk ci kër Sëñ Touba kër mag moom gi ñëwoon fi ànd ak kenn ku ci nekkit yónni sa jëwriñ mu ñëw ñu ngi langook sëriñ Abdou kari Mbodj mi ak sëriñ Abdou Salaam Gaye sëriñ Chérif saw ak sëriñ Lamine Samb ak sëriñ euh, Abdou euh, Mor Ndiaye Bichiri yi nga xam ne kenn ku ne xam na ko di leen siyaare yéen ñëpp nag leen wax ne am nañ mbégte mu yaatoo yaatoo yaatu ci bisub tey bi muy ñëw dajeeg sëriñ Touba Cheikh Mourtada Mbacké euh, sëriñ Touba Cheikh Mourtada Mbacké Bassirou di ko ñaanal suñu borom defal ko fan wu gudd ak wér mu yàgg fi lool ñu jaajëfalit Serigne Ibrahima Khalil ñi nga xam ne moo ànd ak ñun bis bi bis bi nag bañ ci laata ñu ciy ñëw jooytu woon nañ sëñ bi jàmbat yi nga xam ne taalibe yi am nañ ko ci réew ma te kenn ku a xam ne sëriñ tubaa moo saafara si jàngoor yi bokk na ci ñi nga xam ne dañ faa nekk waroon na màggal si waroon a gàmm si wala ñu seet si njaboot gi ñàkk ay kayit jàmbat loolu bokk na ñi nga xam ne dañ fa nekkoon di liggéey ba ci yàgg liggéeyatu ñu ñàkk seen i liggéey jàmbat loolu bokk na ci ñi nga xam ne dañ fay tawat te mënuñoo faju jàngoro ji bokk na ci ñi nga xam ne nii dañ leen fay faat muy lu méttee méttee métti loo xam ne nii ñaan nañ ci barkeb seexul Khadim mboolem taalibe fa nekk Sëriñ Tuubaa sàmm leen aar leen waaye nag sàmm ak aar li koy maye ak li koy joxe moo ji dem fa ñuy sàmmoo ak fa ñuy aaroo te dara gënut ci àdduna ñu dem ci àll bi nekk ci daayiri Serigne Touba yi nekk ci di ci liggéey di ci jaamu yàlla di ci dimbalante ndax ndimbal gi la ci sëñ bi gën a soxla daaw kenn ko ne xam na ne daje woon nañ ci Cheikh Ahmadul Mokhtar di ñaan suñu borom yokk ay leeram ren ñëw ci Serigne Mountakha waaye ren suñu borom daf ñu ci defal tawféex ndax daaw ba ñu demee Cheikh Ahmadul Mokhtar dañoo wëlbatiku waat ñëw Cheikh Mountakha Bassirou ndax Cheikh Mountakha Bassirou mooy jëwriñu soxna jaara ren nag suñu borom dafa dogal jotaay yooyu yëpp doon benn jotaay ñu def ko jotaay bu mucc ayib siyaare Serigne Touba siyaare Soxna Jaara ndax moo jëwriñ Serigne Touba ci kaw suuf moo jëwriñ Soxna Jaara addiya ji nag bi ko waa Brésil yëpp dajalee ba andi ko jaarale ko ci loxo si Ibrahima Khalil mu jébal ko mbokk sell bi di ñekk sama ginnaaw addiya ji toll na ci 12 millions 355 mille 330 francs CFA kenn ku ne xam ne daaw 12 millions lañ joxe woon ren mbokk taalibe yi ne liggéeyam Sëñ Tuubaa dafa war a jëm kanam wërtu dellu ginnaaw moo tax ren ñu def ko 12 millions 355 mille 330 di jaajëfal jëwriñ yi di jaajëfal soxna yi di jaajëfal tuutànk yi nga xam ne ñëwoon nañ fi di ñaan ñoom it tuutànk yi nga xam ne juróom nañ ko suñu borom defal leen magam lislaam ba ñu mën a wëyale liggéey Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne seeni waajur bàyyi na leen ko wala seen ñëwaar ji nga ci ñu fekk leen kon dañuy jox kàddu gu Sëriñ Abdou Karim Mbodj bu ñu paree jox Sëriñ Abdou Salaam bu ñu paree jox Sëriñ Chérif ñoom aw jëwriñ leen kenn ku ne dénkaat suñu mbokk jëwriñ yi dénkaat suñu mbokk talibé yi ban comportement wan doxalin la ñu war a am ndax taalibi Sëñ Tuubaa fu mu dem ambassadeur la fa war a doon wurta yaakaar ci kenn ku du Sëñ Tuubaa wurta bëgg lenn lu du Sëñ Tuubaa wurta xool lenn lu du Sëñ Tuubaa wurta sàkku lenn lu mu sàkkuwu ci Sëñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa defal nañu lépp kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah xel dëggut muy borom Touba ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di teg ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jotaay borom suñu kàddu nag dañ koy sof ci kàddu suñu jëwriñ suñu lépp di seen Cheikh Ndiaye mi ñu ko tuddee tudd nañ mbooleem jëwriñ ju nekk ci Brésil rawatina sëñ Abdou Salaam mu jaaral ci foofu di wax ne ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew ma mën naa jël seen kàddu waxee ca ñu gën a góorgóorluwaat ci liggéey borom Tuubaa bi nga xam ne amuñu lu dul moom ndax sëriñ bi ñi ngay dégg ñu naan magi sëriñ bi ñëpp ay ndaw lañ woon te waykat bi da wax naan ko boo nee ma gënu mag aw lorom moo gën gënu kuréel sëriñ sañu daa dégg sépp jàlluñu wax ba ku def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alkukat kon dañoo war a gën a góorgóorluwaat bu baax ci liggéey borom Tuubaa liggéey borom bii nag ci ndaw ñi lañ ko gën a séentu ndax Serigne Saliou daan wax ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba defoon ci mag ñi donte la yelloo mënuma ko sax ma barkeeloo ko ca kon loolu war naa tax ndaw ñëpp bañ a tas yaakaari Serigne Saliou yooyu mu ci liggéeyal ko Serigne Touba ñu ngi Touba tey ba a guddal wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen baal ak di leen baal ak ah di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Ibrahima Khalil sunu jëwriñ ci yoon wi ah di leen sant yéen waa média yi nga xam ne wax dëgg yàlla sunu kàddu ak yéen a ko fa àggale ah di sant waa Brésil yëpp nag di sant daayira bu baax a baax ah di ziar sëñ Cheikh mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom la ñuy jiital ci Brésil yit a ah, muy jàmbaar it ñu ngi koy ziar baax di jël suñu ziar teg ko ci loxo mu ziareel ñu mbokk taalibe yëpp waaw comme ni ko mbokk taalibe yëpp waxee ah, mooy ñun dañoo féete Amérique latine te muy daanaka lu bees ah te yaakaar naa ni mu am ay jafe comme ni ko sëñ Cheikh ak mbokk joorin yi fi jaar a ah, ñuy sàkkuwaat ci mbokk taalibe yëpp ah ñu àndaat ak luy tubaab di wax rek prudence ñu xool fu ñu dugg ak ñi ñuy waxal ndaxte kenn ku ne xam na ni réew ba ñu nekk muy Brésil day réew moo xam ne nit ña li ñu wax li dañoo am le sang chaud mooy deret bu tàng bon na bu ñu jëflanteeg nañu xam ne ñu jëflanteeg ñoom bu ñu buggee mujj ndaxte fa ñu dem kat li may wax toujours rek diine yóbbuwuñ fa ah luñ fa yóbbu wuti koom ñu yóbbaale suñu diine foofu nag bëgg suñu diine boobu yaatal ko fa ba ña nekk ñëpp nekkat ay jullit bon nag nañu xam fu ñuy dugg xam la ñuy wax xam lu ñuy jëf ah di ñaanal mbokk yëpp nag lii nga xam ne addi bi ñu fi indi nii ñaan ku ci def dërëm ak ku ci defutoon dërëm te am yéene def ci dërëm yàlla na ko yàlla ful ba mu nekk ay xéewali xéewal ba ñekk bitim réew yëpp man cee bokk waaw ñoo ngi ñëpp di baal ñëpp ak di leen baal ak jërë ngeen jëf jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk Brésil gépp ak seen i ndaw yabaloon ñu fi ñu doon ko ñaaxal suñu mbokk jullit yi doon ko ñaaxal suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Brésil ni ko sëñ Chérif sax waxee ñu xam ne solution bi Serigne Touba la li ñu bëgg àdduna ak alaxira ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa lañ ko mën a amee ku ci jàpp say mbir dana jag àdduna dana jag alaxira ndax sëriñ bi fàggul nañu lépp kon nag nañ ko gëm te taalibe Sëriñ Tuubaa day am fit am fulla am fayda am jom loolu lépp nag bu la ko sëriñ bi defalee indi la ci réew ma nga nekk fay liggéey lépp looy bëgg te koy sàkku jaarale ko Sëriñ Tuubaa boobu bëgg mu gaaw ñoo ngi leen sant leen gërëm di ñaan suñu borom leen tawfeex salaamaaleykum wa